ma jigéen tey liñ bëgg a waxtaanee allah xam naa bu dee dina ci xaj rek ñu waxtaanee ca euh, weekend bi nga xam ni ci la ñu jëm ni incha allah nee nañu président Macky Sall dina def ab remaniement maanaam daal dina am ay soppite yu am ci gouvernement bii nga xam ni moo fi nekk ndax nag dañ ciy boole lu mel ni intérieur bi nga xam ni opposition bi ñu ngi koy ŋàññaka dingat ni bëgguñu mu euh, organiser élection yi la ndax daal wóolu wuñ ko bu ci xajee nag ñu dolli waale ci TikTok bi nga xam ni euh, gouvernement bu Sénégal moo ko arrêté woon yàgg na nee nag du ko débloqué mukk lu ni TikTok dafa jël ay mesure am euh, ci yenn vidéo yi nga xam ne mi ngi jaar ci TikTok bi kon ba léegi fi mu toll nii arrêté ba moom ma nga ca xëy na gaa yee jaar ay pexe di kii TikTok waaye TikTok fi mu toll nii ku amul euh, IPN defe naa na doo ca dugg. Mm. waaw fi mu toll nii gouvernement bi nee nag du ko bàyyi. TikTok daal su bëggee ñu bàyyi ko muy émettre fii normal di kii di màjj màjj na nangu sart yi ko wax mm. waaw son yi dee wax dëgg yàlla président remaniement moom mënul ñàkk si ab euh, gouvernement waaye nag si ñoo xam ne nii daanaka cinq mois xaw ma six mois moo leen fi dese moom wax dëgg yàlla changement ba fay am du soppi dara ci li fi nekkoon ah, ah, euh, gis-gis boobu laa si am parce que cinq mois ñu wàññi ñu mën cee wàññi ceeb ak diw ak suukar douze douze ans Euh, defoo benn pexe bu nga xamante ne ni euh, mën na tax euh, vraiment sénégalais yi gis seen bopp ci ni ñu yoree réew mi te ñu dénk leen ko du seen moomeel ñu fàttali leen ko encore une fois. Mhm. gisuñu benn changement lépp lu fi doon jar juróom fi mu toll nii ñaar fukk la fiy jar. Mhm. donc buñ ko changé itam pour xam naa seeni mbiri bopp lay lay lay doon. kon mhm. donc intérieur nag moom sànq rek maa ngi koy wax alaaji ma ne ko xam naa sonn na lool ndeysaan. ndax lu ñëw rek euh, ma nga ca euh, mm-hmm. noppalu benn yoon mais bon euh, léegi rek mu dem mm-hmm. noppaluku ko ji ah, incha allah leneen li ngay wax si mbirum tiktok yi nag waaw Euh, ñoom dañoo xamul ne nit ñi. Hmm. <laughs> dañ leen romb. ñu romb euh, euh, romb. parce que bu ñu bu ñu bu ñu ko restreindre. Hmm. te teewul gars yi ñu ngi suivre TikTok ba tey. mais gars yi suivre wuñ ko ci réew mi mel ni comme si dégluwuñu ak topp ñu. mais wuñ ko ci réew mi. waaw peu importe son yi bu. Ah, ah, ah, l'essentiel si. peu importe l' essentiel mooy yow il faut nga def yi pexe ko que ñu dindi ko que ñu ñàkk ko bañ a dindi du tee yow la ngay bëgg a gis chaque jour yow yaa ngi koy gis live yi nga ko daan seetaanee te du dagg ñu xëy ne tëj nañ internet teewul gars yi ñi ngi connecté wu ñi ngi gis live yi comme il faut non mais neexatul comme nam neexee woon waa ñëwal te bàyyi waaju waa ñëwal rek ñëwal ma jigéen voilà alaajee ngi nii tim téléphone am di tiktok alaaji vidéo yi yàggee rek lay lay actualiser war na yàlla vidéo yi yàgg xoolal yi mu seetaan dem vraiment loolu moom information son yi ndax dinañ ko dindeem duñ ko dindi dégg naa nag ñu naan euh, peut-être euh, kii contenu yi ñu bëgg yëpp pour restreindre ko comme ni ñu ko bëggee mënuñu mm. ah, ko parce que dégg naa sax am na gars yu nga xamante ne nii ah, ubbi nañ ay kii yoo xamante plateforme yoo xamante ne nii pour lool la bu nga xamante ne nii ñoom bu ñu ko bëggoon te day yomb mais yii moom son yi bu Facebook Instagram TikTok ak Facebook. aywa pour nga dindi ko du yomb fii. waaw. Euh, ci weekend bi ñu jëm président Sall. man euh, li may def mooy yóbbante président parce que dañ naan yóbbante kuy fóot saabu cala. ay ca yóbbante euh, li ma koy yóbbante rek mooy di ko ñaan. Mm. li nga xamante ni bii Ablaye defoon na ko. Mm-hmm. tey ci jamonoy Abdou Diouf ñu amoon ko. bàyyi alternance yu normal am nga xamante ni bii kenn ka indiwut weddiwut nekkuñu fi di diingat mhm. loolu lañ koy ñaan euh, ne ko daal wax dëgg fa yàlla ministre boo xamante ni bii dafay yor lépp lu jëm ci wàllu élection yi mm. ñu ngi ko koy euh, ñaan daal mu jéem ñu ko wutal parce que loolu dana am solo torop ci li nga xamante ni bii ki fi nekk nag ah non ki fi nekk comme que dafa am féete Ah, comme que dafa am féete moom waaw ki fi nekk kat ku ne xam na ni. mais Sénégal euh, noonu lay doxee bañ ko xamee ba léegi. ah waa déedéet. ministre bi ñuy far intérieur dafa dindi woon kii Ousmane Ngom doxewut noonu. waaw ah. Ablaye Wade daal dindi woon Ousmane Ngom looloo tax euh, président Macky saalu falu du dëkk. waaw waaw dafa dindi woon parce que Ousmane Ngom moo waroon a orga après Ablaye Wade ci la dindi Ousmane Ngom. waaw jox ko waajooju xamu Cheikh Gueye xamu mu mu gérer li nga xam ne mooy élection yi donc tamit loolu lañ koy ñaan rek hmm. comme que moom sax boo bokkut dafa war a gën a yomb hmm. euh, bu ko defee loolu daa dee am bu loolu amee rek incha allah rabbi hmm. euh, mu baax leneen li nag moom ci wàllu remaniement moom wax dëgg fa yàlla man gisuma euh, kii bi quoi bu dul loolu daal lañ xam ne daal sénégal yi soxla nañ ko peut-être loolu la ñu bëgg a defar waaw leneen li jëm nag ci wàllu TikTok nee naa la xam nga TikTok moom buntu saree la la bunt yi moom boo tëjee ñoom benn bunt lañ ci yor waaw xam nga téeméeri porte boo tëjee benn bi ba noppi naan tëj naa ko mm. euh, gaa yi feneen la ñuy jaar rek dugg gaa yaa ngi dugg waaw donc comme gaa yaa nga dugg te porte yooyu moom yoroo yoroo xomb gi waaye nit nit nit jaar na ci fenêtre ba taay ñu dóor ko bal waa non mais c'est que dama ne porte yooyu xam nga ñoom yoruñu xomb gi maanaam yoruñu ah, ah, li war a tax ñu yor xomb gee tax ñoom xomb gi ñu yore xomb gi ñu yore mooy xomb kii lañ yore. mais yow pour nga dugg TikTok da ngaa génn réew mi. waaw comme boobu beneen buntu la rek damay ne ci réew mi génn réew mi. waaw xam nga ne réew mi génn réew mi moom. Euh, loolu moom. Euh, kii na waaw macha allah. te nag man sax affaire bi jaaxal na ma léeg-léeg du ma génn réew mi sax nekk ci biir réew mi laay du ma activé sax luy génne réew mi mais TikTok bi day dox. déedéet ñoom war nañoo xoolaat ndax dañ koo tëj. non yi paase alaaj ngay seetaanaat doon seetaan yi paase ngay hmm. seetaanaat. xam naa li ma la wax. suba ba léegi di active léegi essayé nga dugg ci direct nga xool ni muy def day day day day day tag. Mm, yow loolu direct yi day tag neexatul ñi ci liggéey kay xam nañ xam nga alaaji mii day day pousse di seetaan ay vidéo yu yàgg mais ñi ci liggéey xam na ni mm. TikTok bi neexatul. mais mais mi ngi actualisé wu. Mm, xam nga moom alaaji mii ay mbaxal ak ay soos ak ay gerte caaf ak kuy jaay dibi rek lay seetaan ci TikTok bi. waa kay yóbbante àkk la. ci euh, mbaxal ak soos hmm? euh, Babacar Kane Euh. dafa ma message démb ne ma dafa mel ni seen sëriñ bi dafa maa liggéey. seen sëriñ ndax vidéo bi ma koy vaar gis naa ko. waaw ah. mais nee na bi mu demee di ko jëliwaat. ko wër ba sonn <laughs> mu ne nag ma ne ko sëñ bi est-ce que demul aras yóbbu la mu ne ma <laughs> sëñ bi mës dem aras. <laughs> na yàlla xoolal lu leer laa la wax de Babacar kenn korompo Babacar kenn kenn liggéeyu ko wuy maanaam arrêté yi muy def te yemale. <laughs> bu fekkee ne am na leen lu ci rax mu wax moom. war nañ ko wax na ko rek ndax fi mu toll nii gars yi ñu ngi koy waaw ñu ngi koy sóoraale ndax saa lu ñu wax mu ne defal ndànk waa ji Babacar fi nekk xam naa daa dem aras yóbbu la eh, xam nga macha <clears throat> da doon da doon jéem a dugg ci lu mu xam. te ngaa bañ a insister mu boo fi jaayee baatin da doon jéem a dugg ci lu mu xam. ma jigéen pièce la de. Eh, waaye bu ma moytuwul rek. Ah. danaa ko wan ne ko man déwuma ci caaxaan waaw parce ñun moom baatin bi moom dañ ko dafa yàgg ak ñun sunu baatin bii dafa yàgg ak ñun de di ah, mhm, dafa yàgg ak ñun <laughs> waaw loo gis rek Babacar parce que ba mu ko gisee la ma la ma def ba tax gis gisatu ko loolu xamu ko ci baatin bi la ma ca laa naroon a ñëw sax laataan ma jigéen di wax man yëgoon naa kii bi ci baatin waaw ci baatin te boo paree nga delloo sama mbaxane mi waaw. soo mbaxane saa yi nee na moomam mbaxana yi. soo <laughs> mbaxane daa bëgg xëy nag léegi nag <laughs> nee na mbaxana yi ay mbaxanaam la. te yi dama cee jëndoon ñaar mbaxana moom président Macky Sall la ko gars yi wax. déedéet waaw waaw. laa ci jëndoon ñaar